Caama Kalle a te Gawla Mbaka cosaane Mbeya Nondi aca arbitre ba sifflé na quart de finale quart de finale poids lourd diggante Roga Yaaja ak ki xam ne moom mooy Mbine Ndiol Yaaja moo ñu woon gannaaw ngemboo ngembu lu ñuul Mbine Ndiol Sowal moom lañ jàkkaar lool mu ngemboo ngembu lu xonk Mbine Ndiol jëli na Roga Yaaja Just, just, just kiss, kiss. Babacar Mardong ancien leader Gilas ngar ngudo hit bo marti bi ande ko bo animation bi awago continue ko pelanti Rogo Yaaja Mbine Ndiol Mbine Ndiol Rogo Yaaja ah, laa daan na ko Rogo Yaaja daan na Mbine